mënta ñàkk <laughs> moom daal xam naa ni plateau baa ngi doog a tàmbale na bismillahi rahmani rahim maa ngi tàmbalee ci yàlla mi rahman tey rahim allahuma salli wa wa barik maa ngi lay ñaan yow yàlla nga jullit te sëlmal ala sayidina wa mawlana muhammadin kay ki sunu sang tey sunu kilifa moom sayidina muhammad wa alihi wa sahbihi awa alihi ak ay ñoñom wa sahbi ak i sahabaam kama ansalta alayhi alqur'ana kam na nga wàccee ci moom alqur'an moom rasulihi alhasim almuazzama alqur'an mooy lu tedd mooy lu ñu teddal la yaatihi albatilu ay caaxaan nag mënta indi alqur'an min bayni yadayhi wala min xalfihi du kanam du ay loxo la ñuy indi alxuraan ci yàlla lay bàyyi ko. fii sahri ramadan. ci weeru koor la yàlla wàccee alxuraan. sahit an allah rabbun waahid xaadim nee ne seede yàlla benn buur la cappaaculi la moom yàlla walaysa yanuni asan aw jaahid aw lor du ma jublu ko soxor baa ko añaan du ma jublu hibaatu silor silosimi samadi yàlla mi nga xam ne kenn la kott la moo may mayam yi lii wasalat bi mustawa muhammadi mayam yi dikk na waaye ci daraji rusulaay li dikk ci man rabitu fi tijarati raban yafu ci sama jaayante tonaw goo xam ne gétti na kawe na rabbi xalifati wa jaari wa rafi yàlla mooy sama dëkkaale mooy sama àndaale man xaadimu rasul raditu anu wa waradin anni gërëm nu naa fi yàlla waaye yàlla nee na ma jërëjëf yow abdul xadim wa kaana lii bi karamin wa man yàlla nekkal na ma ci teraanga ak dolli ma ay may minanu ala yalaysa tanfadu yàlla maye mi nag du jeex ci man xaadimu rasul ndax kullu maxluqin siwaay yen faddu nee na ku yàlla jox da nga jeex la ba mu des man xaadimu rasul wa innani ilaa ridaahu axfidu waaye ci ngërëmu la nag laay daw wéeru gi man xaadimu rasul dalla lazi yasunnu ni xayral xadim réer na sànku na dof na ku jort na damaa doon leneen lu dul abdullahi wa xaadimu rasul lil mustapha la si siyaadatun tadu mustapha mi nga xam ne moom moom ak càng moom rek laay doon ab liggéey katam ashaba baaxin laa yazaalu mushiba dàq na yóbbu na dina na aji des ji nga xam ne masta dañ di aji dindi ilaa siwaaya darari fasab aw lor sunu borom dil na ko ci man mu set wicc ci man xaadimu rasul nee na sunu borom mi nga xam ne mooy waahidu dindi ci samay walla man xaadim kulla azan wa ma nahaani jaahid kulla azan wépp lor wa ma nahaani du jublu jaahidu aju soxor bismillahi rahmani rahim kon ngi tàmbalewaat ci turu yàlla man xaadimu rasul allahumma salli wa sallim wa barik yow yàlla yàlla nga julli te sëlmal tabarkeel ala sayyidina wa mawlana muhammad sunu sang tey sunu kilifa moom Seydina Muhammad wa alihi wa sahbihi ak ñam ak sahabaam moom Seydina Muhammad waxfir li jamia ma taqaddama min zanbi nang ma jéggal lépp loo xam ne jiitu woon na ci bàkkaar tama mas koo def wa ma ak bàkkaar boo xam ne dana ñëw tax amaguma wa hab lii maa siqtu indaka bi barakaati sahri ramadan nag ma may ci dara ji jublu gi ma la julli ci tedd ngay weeru koor zakatu rabbi adadal xalaayiqi xaadim ne sant naa yàlla adadal xalaayiqi limu lu yàlla bi delluwaatal ci bayit bi zakatu rabbi adadal xalaayiqi moo xam toqi ndox la moo xam feppi suuf la moo xam xobi garab la moo xam ay béy lañu moo xam ay xar lañu moo xam ay gëléem lañu suñu doonee lañ toll ci àdduna sant naa yàlla cant gu ne toll man xaadimu rasul sakartu rabbi adadal xalaayiq moo xam nit la moo xam jinne la moo xam malayka la lu ñu na ne sant naa ko yàlla man xaadimu rasul sakartu rabbi adadal moo tax mu waxoon ni yéene naa sant yàlla cant goom dina ko duy ci asamaan ak su ba mu fas del ak xeeti cant sakartu rabbi adadal xalaayiq kon nag nee na sant naa lu tolloog li mu lam bind lépp lu nu toll ko yàlla mu waxidan loo bi amdillah di ko wéetal wéetal goo xam ne moo yàlla ci jëmmam jëmmam yàlla huwal ilahu laa ilaha xayruhu xaadim ne ne mooy buur laa ilaha xayruhu amul benn buur bu dul moom wan xaadali ilal jinaani xayruhu tabakaroon nuy dem aljana jox na ma aw yiwam moom yàlla radatuma wajahu saw dalal la nga ne nag ñi dañ koo woon fi yàlla dindi naa ko man xaadim mimma an ixtilal lépp lu yàllul ci jëmm yàlla far naa man xaadim rasul rumtu sukkoora bi sikri al-aziz kon nag maa ngi sàkkoo am ngërëmul yàlla ci tedd ngay alquran wa kaana li bi xalqi aadatin aziz yàlla nag defal na ma xar baax boo xam ne moom yàlla dong moo ko man malakani alquran tamlikal jamil yàlla mi nga xam ne mooy jamil moo may alquran moo ko moom loo wali siwa maxtaar lii lastu amin kon nag lépp lu ma yàlla tànnalul du ma ca jàng jëm man xaadimu rasul damina lii takkar man saa yàlla nag ne moom moo ma tamponel ak texe man xaadimu rasul wa qarqa ma jox secret li ma may xar baax man xaadim la yaqaada fi lmabaaxil asama la gën a lew te dagan sunu borom may na ma ca tedd nga wala yuri nii daara man taazama sunu borom nag du ma wanele ko képp koo xam ne day riiri lu ba mu féttéerlu naajaytu man di fataxal kon nag ñaan naa yàlla mi nga xam ne moo ma tijjil bunt yi bil bisri qaidan ila sawaaba sunu borom moo ma jox aw yiw jox ma ay mbég man xaadimu rasul wa barakaati xayrihi ak barke bi yiwam wa min jami suhuri amin ya rabbal alamin yiw wi nekk ci weer yëpp sunu borom may na ma seeni barke man xaadimu rasul loolu mooy tarjumaani xasida gi ñaari xasida yëpp chahru ramadan la ko tënk jërëjëf kon yaa jàll nga ci geneen xasida mooy weer wu ñu nekk rek nee na weeru koor gan la goo xam ne maa ngi lay ndokkeel maa ngi lay dalal yow weeru koor